jumelles. ay eh, jumelles eh, ay du coup man aussi dama dama toog di xoolee lan laa wax a def buñ ko laajee pour aji mu dem tontu mooy te laajut tontu xamuñu woon il a refusé de parler donc ñun ñoo ngi nii taxaw. Mhm. c'est un peu déçu parce que dama. vous êtes déçu voilà. waaw loolu mbay ji mu wax fii continué mu wax. tey j'ai vu Ousmane boo mosul gis. waaw. tey j'ai vu Ousmane boo gis quand même Ousmane bi ma xamoon si télé yi nii la defoon. mais quand même non mais amul fi wax ak man dommage. mais Adji Sarr xool ñu. kon a daal yéen ñaar jokkalante wala ay kàddu. non dafa bañ tout dafa bañ pour bañ dafa bañ pour xam man. maître El Hadji Diouf la doon waxal. maître El Hadji Diouf la doon waxal. moom ndax nangu na tontu ci question doyen de juges. tontuwul doyen juge tontuwul maître El Hadj Diouf tontuwul procureur. mais aji aji. mais man par contre tontu naa loolu yëpp tontu naa samay avocat tontu naa. doyen juge Sonko dala laaj Adji Sarr ana biir Sonko dala laaj Adji Sarr mais par contre j'ai jamais dit que dama dama ëmb donc. je vois pas le pourquoi. Gabriel, Mais silence, maître Dialika va parler. Ok, maître, maître, maître ñëwal. Il y a trop de bruit quand même. Ici man de laaj leen ma man. Ñoom ñoo gis ni. Waaw après ñëw Mais, que peut-on reconnaître aujourd'hui de ce face à face de ce face à face Ce que je peux dire, c'est que, comme vous le savez, c'était une confrontation entre l'inculpé dañ koy laajte voilà aji euh, ci subaak léegi yaa ngi ci biir bureau doyen des juges est mën nga ñu wax lan moo fa xew sa diggante ak Ousmane Sonko. dara xewul kilifa bu taxaw ak xale bu ndaw après tu n'as rien à dire c'est décevant quand même ñu toog fii depuis ba boobu léegi amuñu lu ñu wax et que.